kon mbokk yi ñu suivre ci Leewtoo TV ni ngeen ko gisee noonu rek xam nga mobile bu Grand Yoff la ñu seet si tey gis ngeen ko macha allah mu nekkoon États-Unis gars yu bari ne woon nag dafa bàyyi làmb loolu nag ñu ñëw bëgg ci am lu ñu leer beneen bi gis tamit gis nañ écurie Grand Yoff mbooloo ni mu wàcce xaw ma moo tax mbër yi daw ñuy dem Espagne ñii États-Unis ku ne seet foo dugg mbër maa ngi lay di lay ziar. ñu ngi lay delloo siyaar di leen nuyu tamit di nuyu waa Leewtoo yëpp nuyu caméraman ñëpp di la nuyu yow Babacar di nuyu Sénégal yëpp di nuyu yi di leen wax ne namu nañ waaye xam nañ ne ñoo leen raw daal di nuyu waa Grand Yoff fi mu dëkk waa Rafaat surtout waa Senzala bi. mobile bu Grand Yoff moom bu ko waxee yaakaar naa Sénégal yëpp xam nañ ko tey ci làmb actuellement mais da dama bëgg nga fàttaliwaat Sénégal yi tuuti rek ci palmarès bi ko ci victoire yeeg défaite yi. waaw man mobile benn zone la bu nekk Grand Yoff débuté fi sama carrière mbapat débuté fi sama carrière arène yëpp yaakaar naa def douze combats am ci cinq défaites. TFP bi laay ñëw tout droit ah, TFP bi da nga cee dugg ñëpp ne mobile mooy favori mais yaakaar na sa combat da danga koy ñàkk ci TFP bi loolu bi mu amee bettu la ak lan moo tax mu am. waaw li tax mu am daa bokkoon ci man te faaw mu ñëw nit du jéggi dessin ah, la fekk ma am combat ñëpp ne mobile mooy favori nekkul man maay wër ci nit ñi naan bu ñu leen dekkee kii wax leen maay favori xëy ñi ko doon wax xam nañ fu ko teg xam nañ kan mooy mobile mais amaan tamit suñu borom noonu la ko jubloo woon mooy li ma doon wax rek chaque jour. heure bu ma ñëwee stade ñi ma xam ne moo koy dogal. mais daanu yooyu daanu yooyu nga daanu ci TFP ne dafa yomb ñii ne mobile maanaam loolu lan la. waaw mooy ni ko ñëpp gisee rek maanaam tey boo gisee ma perte combat ñëpp ne dafa yomb que xëy xam ci a comprendre quoi. mais lan moo tax yow joxe woo. Hmm? parce que bis boo war a ñàkk tamit boo ci joxee li nga war a joxe nekkatul bis boo war a ñàkk. boo waree ñàkk dëgg da nga doon cuune ba ñàkk ba pare. mais ñetti combat ci benn TFP nga ñàkkandoo yëpp nga ne boo joxe li nga war a joxe est que boo jëlee benn défaite waroo ci jàngate dara pour boo ñëwaat nga mën a waaw mooy li ma wax rek ñëw naa ci TFP bi ma ñëw sama première sortie ma ñàkk ko bi may perte tamit man maa bëree ba perte sama deuxième sortie man maa bëree ba perte mais noonu la ko sunu borom tuddee woon. sa digganteeg soq mu mel ni muy combat bi cëppoon coow ci TFP bi yéen ñaar. ci entre Pikine ak Grand Yoff coow lu méttee métti euh, lamb jeex mu mel ne ay xarit ngeen. non mosuñu doon xarit non non. waaw làmb moo ñu boole woon rek ñu doon liggéey jeex na mu ngi ci boppam maa ngi sam bopp làmb mun nañoo boolewaat mais ay xarit ak ay yooyu moom mooy loolu ko waa doonuñu ko. TFP ba jeex nag ñu ñuy wax sa combat am na combat defe naa ba waroon a bëri de wala. waaw dese woon naa ci benn combat ma waroon ko bëreeg doomu dàngu. ak dàngu. waaw par la suite ma amoon ci blessure après mooy loolu quoi. Hmm. lu tax bëree combat blessure baa tax wala. waaw blessure bi moo taxoon mu ma ko woon bëree. léegi promoteur ba fu mu ah, amee blessure promoteur bi dafa décidé woon après mu jël doomu dàngu jox ko ñàkk jëriñu moom contrat am ak doomu dàngu jeex quoi. waaw man war naa ko bëreel combat maa ngi koy déglu heure bu paree rek. moom Fallou Ndiaye. waaw. actuellement bu la joxoon dàngu di nga ko jël. suba suba pare naa pour bëre bëre moom indi Sénégal. gars yi nag dañ ne woon da ngaa daw sa dem États-Unis parce que làmb ji dëgër na sa côté nga ne fes dugg États-Unis comme ni ko yeneen gars yi defee dem pour ne ci leneen. waaw loolu tamit xëy na xalaatu ñeen ñi la rek fii nit ñi xam nga fii moom kenn mënu kenn te nit ñi duñu ay application kenn mënu leen télécharger waaw te ñun fii ñu nekk nii réew démocratie la ku neex am nga droit lu la neex man bu ma neexee sax baaw gat nekk ci Leewtoo TV ma ne lan da cee dugg pour dóor yenn autorité yi. am naa maa moom sama bopp lu ma neex laa xam li ci dugal Babacar Babacar xam na ko man li ma dugal li ma taxoon ma jóge fii dem voyage yi xamoon naa ko li ma yëkkati woon xam naa ko ma demee ci laa nekkoon te ku ma gis tamit di nga xam ne si lan laa hmm. loo nekkoon da nga doon entraîné wala da demoon di liggéey du xaalis. waaw dama doon entraîné te ku ma xool tamit na xam ne dama doon entraîné quoi. mais wutoo fa xaalis kon. ah bu ma ko fa gisoon de jël moom wax dëgg yàlla xaalis rek laa bëgg. jotoo oo liggéey dara. non waaye doon lijjanti sama bopp nag waaw parce que man du ma ngaaga ci town bi laa dëkk mais nekkuloon koo xam ne daal dafa daw bàyyi làmb ji quoi. wax bu ma ko defoon jarul may ñëwaat. mais la moo tax mbir yi tamit ngeen jël États-Unis am na ci ñoo xam ne moom far nañ fa toog ci li ñu dégg am na ñoo xam ne ñu ngi dem di ñëw lu tax loolu. waa xam nga tamit entraînement day toll loolu ci niveau yëpp la quoi ba ci footballeur day football nawetaan jékki-jékki bu am benn niveau bu championnat Sénégal niveau bi yokk mu signé professionnel nekk fu mu toll noonu ñun tañ début suñu carrière di ko entraîné ci tefes gi ci dini ci saal nekk Sénégal fii nii xëy na sport bi ñuy def moo ñu dimbale ba ñu yegg foofu ñu nekk. mbër yi fay dem toog laa wax quoi waxuma ki nga xam ne moom dafa dem pour préparer ñëwaat bëre. ah ñi fay dem toog tamit xëy na tamit seen situation moo toll foofu noonu waaye man kontaan kon blâme ma kenn man sama gis-gisu bopp laa sama xam-xam ak li man li ma gëm di ko def mooy man dama ne sama yaay mënul am lu ëpp cinquante ans dem benn dëkk pare pour toog lu mat un an ko bàyyi ginnaaw. kon daal maire bi moom mënu xas fa fasoo ko yéene bàyyi fenn lu mat un an. mobile euh, tamit ñu ñëw tey écrit bi nga nekk muy Grand Yoff gis nga tey résultat bi leen suñu lamb bindal seize combats dix victoire non dix défaites six victoire. waaw bu boobaa loolu moo waral waa écrit bi war a xool seen bopp parce que c'est la première fois moom Grand Yoff. yeah Grand dafa nekkoon écrit bu ndaw boo xamante ne day génn saison exploit yu nekk façon victoire yu nekk ñu koy dugal buñ demee bay toog. waxuma sax defet yi parce que defeet moom kuy sport ku ne di nga ko am mais ñu ñi am problème mu am mbër nañ toog ñu waxtaanaat seen biir caaxaan baaxul te am na yoo xamante ne nii jarul naxante ñu ñoo fi nekk lépp ci àdduna loo xam ne dañ koy liggéeyee mu doon association wala mu doon lu mu mën a doon heure bu ñu ko liggéeyee ba at bi jeex di nga dajale ñu ngi ko di nga ko seqal ñëpp leen ren nii lañ toll nii lañ def nii lañ def nii lañ def ndax ñi leen jiite ngeen ñeent ñi jiite woon daaw pare ngeen pour ñu continuer wala doyatuñ leen. ñu xool liggéey bi xool poste yi sell ñu ne nañ ko dénk keneen xool liy baax ñu ne ñekk fa nekk na ko ne. kon su ma la déggee maanaam ci côté liggéey bi technicien yi maanaam encadrement technique bi ak ak administration maanaam président ñi ma dal da ngaa jàpp dañu deful seen liggéey wala. non maanaam du encadrement technique bi wala lii wala lii. écrit grand ci boole boppam moo liggéey. ah bu loolu kay bu ñu waxee encadrement technique bi mooy moo tax ñuy wax ak ak administration bi. xam nga tey maanaam maa ngi dégg sax sama Copain ma ko nuyuwaale en passant naan di faal maa ngi ko dégg keroog muy wax naan Igri Grand dafa amul dëgg wala yu demee noonu wala lii yee loolu muy wax moo nekk gis nga am na loo xamante ni matul nëbbante boo yoree ay xale yow làmb amatoo ci yaakaar làmb mun mënatu leen a may dépasse ñoom ñi nga xamante ne exemple ñooy ŋàgg Igri muy Grand muy feneen mais ñun bu ñuy wax dañuy wax ci noowu Grand ndax fa lañ nekk te ñoom nekkatuñ nit koo xamante ne ci làmb lañ yaakaar seen dépasse wala dara takkuñu ngéem bu bëre defuñu dara mbër mooy bëre. mbër moo ci yaakaar mbër moo ci bëgg lu ne yaa ngi dégg amul foo dégg ci àdduna ñu ne bu at bi saison bi tëjee bay tijji président équipe bi day dem renouveler licence am day fay dem renouveler ko am na wala amul amul foo dégg ñu ne dirigeant bi day dem fay CNG renouveler licence am mbëray def lépp bu fekkee yow dañ ne li liñ la dénk coono nga ci am amoo loo ci loo ci rek nga ci am ñi ngi ko dénk dem ba ciy xulóog yow nga yàllax leen seen yëf dem. kon fi mu ne da ngay laaj bu fekkee temps maanaam gis nga dafa am nekkul attanu nga attan nañ ko mais jot mooy liggéey tey da ngay nekk ci gox bi nga nekk benn grand frère boo xamante ne nii yow sa passion làmb la moom nga bëgg foo mën a nekk bu wóoru entraînement jot da ngay bàyyi liggéey def dem seetaan yi mbëri nekk ci gox bi di bëre kooku am na jotu toog pour tey écrit dara parce que moom loolu na bëgg même bu mbëru grand bëriwul mu paas xaalisam dem seetaan yi mbëri bëgg mais bu fekkee yow da nga yor sa liggéey mu gënoon na fuuf làmb gënal la fuuf mbër yu bëre ba pare nga bëgg na mbër yi man maa leen gérer waxoo leen dëgg ba pare da ngeen ma jaral lu nekk waxoo leen dëgg da nga leen di nax da nga leen di nax mbër yi a ngi laa xëy dama lay delloo question bi ne mbëru Grand Yoff bi mu ñëwee stade simee ko yow ci moom amoon yaakaar lépp laa mën a blâmer mbëru Grand Yoff ba mu des entraînement kon ni la nga normal loolu mooy suñu métier ñun amuñu dara defuñu dara liggéeyuñ xëy ñu wàcc ñu entrement mooy suñu métier dama koy wax chaque jour te du ma taay di ko wax ñun dañ judduwuñ ci benn famille bu suñu borom dimbale ci yenn moyen yi wala demee noonu yaa ngi dégg tey dañ judd ci benn famille boo xamante ni dafa métti woon ñu koy rayante sànq ki nga àndal maa ngi ko dégg mu koy expliqué noonu mu ko waxee noonu la demee tey ñu judd koñ bi ñu dëkk nii muy alentour bii nii ñun rek ñoo ci yeewoo ci baraak. yéen ci doon yeewoo ci baraak. ci baraak léegi kay daa mel ni baraag ba na. yaa ngi dégg. baraag ba dañ na. waaw sant yàlla mu métti woon trop bu ma xëyoon sama yaay di wax man dama koy wax jarul expliqué am na loo xam ne mënoo dem ba am benn kii bi ñu la koy expliqué lenn rek mooy exemple mu ne waaw ma ne ko koñ bi ñëpp dañuy yéeg escalier yow rek yaa yéegul escalier te ñu ko fi yéeg seeni dooma ko def loolu laa ko doon wax yàlla nattuñu ñu nekk ci di lu di reyante. ba paa bi wàccee liggéey ci baraag bi ma ne bu fekkee maire bi ci la nar a wàccee liggéey yàlla naa ko njëkk a dem bàyyi ko fi loolu bañ ma fay fekk man loolu lañ doon ñaan suñu borom suñu borom mu ngi suturaal boobu ba léegi ñu ngi ci nekk te lenn mayuñu ko même bu dee bëriwuñ ñu fay ñu luñ ko defaree kii yëkkati alalam dañu ko def làmba tax mu ñu koy defal ndax ci làmb la ñu xamee kon koo xamante ne amoo jot bi nga xamante ne nii pare nga pour jàppale ci làmb même làmb kese ah ñëpp dama message la pour ñëpp loo mën a nekk association nga ñëw jël ci poste wala ASC wala lu mu mën a doon te sa liggéey mayu la ko sa jot mayu la ko ngir yàlla bul tardé loolu noonu ndax yëfu mbooloo la jox leen ko xamal leen ne bëgg naa sama xool a ngi ci mais sama temps moo ma ñëwoon léegi léegi léegi ne ma a jox affaire surveillant équipe bi nga xool booy ba xam ñi nga entraîné dama naan leen mënuma ko parce que 17 heures bi ngeen entraîné laay entraîné ji te pourtant man aw ma jotu def yor benn poste ci ASC bi aw ma jotam loolu leer na nañ ci Grand Yoff écurie Grand léegi nag eh, lamb ji defe naa ren bi muy tëj fekku la fi de. waaw bi muy tëj fekk na ma voyage ah. yaa fekk. Euh, Modou Lo ma seen seetaan ko. Modou Lo ma seen waaw seetaan naa ko. noo gisee combat boobu. waaw lamb la woon boo xam ne noonu la mënoon jeexee parce que ñoom ñaar ñëpp ñaari ndaanaan lañ. bi njëkkee bëre bëre bu neex moo feeñ. kon bu ñu ñëwaatee ci bëre calcul bi dina bari lool ci bëre ba lamb ji mënoon na jeexee lu dul bëre te noonu la jeexee. bi ñuy bëre ñoom ñaar am na ko ci faraloon. non non. tax. dara. nekkoon combat rek ma toogoon di ko seetaan ak plaisir def ko si le maire gañ. mu da ngeen relation wala da ngeen xamante Modou Lo. waaw xam na ma xam naa ko yee. da ngeen ma sa bokk fu ngeen di entraîné. non yéegi ni si ana Zarko. Zar mi ngi fi. moom it dégg naa mu ngi ne mais nga Espagne moom jàpp boppam. Eh, mi ngi Espagne di entraîné mi ngi Espagne di entraîné. day entraîné wala. Eh, ngi entraîné bu baax baax. dégg nañ ci temps yii ñu ne dirigeant yi ñu ne dàq nañ ko ci écurie bi xaw ma sanctionné nañ ko daal ci écurie bi daaw. déggoon nga loolu. waaw déggoon naa ko ba ci man mi amoon nañ ci ay problème sax man ak ñoom parce que àdduna bi doxewul noonu. boo yoree benn mbir nga ciy liggéey maanaam mosoo gis dirigeant bu gën a yaay mbër ci écurie mais ban favour la ñu war a mën a am ba mbër bu gisee lu ko dérange ci écurie bi mu toog mu wax ko plein média ñu taxaw ne mbër bi warul woon wax ak média bi dañuy dem CNG ñu dugal boo demee CNG lan ngay bind mbër bi daf ñu dépassé non doo wax mbër bi daf ma dóor doo daf ma saaga mais mbër dafa génn ci média bi te ku xam na ne mbër du saaga ndey ci loolu nga mën a wax mbër bi dafa dem ci média bi wax lii ak lii ak lii dañ koy aj yaa ngi dégg ñun écurie Grand Yoff mbooloo maanaam bu fekkoon CNG daf ñu woo mbër yi ñëw toog ñu woo encadrement équipe yëpp ñu ñëw toog ñun mun nañ leen bàyyi ñu wax 17h ba 19 ñu ne ñu tëj leen ñu wax benn mot CNG yëkkati leen na leen dem leen parce que ñun li ñuy wax dañ siy teg wax ñu ne ñu Khalifa Sall yëkkati na 11 millions liquide may ko écrit grand mbooloo bu ñu ko génnee teg ko bi nañ ko waxuma seeg de liquide. xaalis lépp may pour keesu grand mbooloo keesu grand mbooloo nii nii amul 9500. yow li nga wax doy na waar de. wala déggoo ma. maa ci xaalis bi kuy takk ngeen bu lekku ci léegi ñun fu ñu dem di wax ñun bu ñu neexee suuf ñu jàpp rek la ñuy jàpp duñ wax ay yeneen problème muy gudd quoi parce que day am loo xam ne guddal coow la mais loolu la ñuy wax rek ñu toog ba xam. léegi xaalis boobu fan ko xam si ren moo am. gisu ngeen ci cent franc. waaw. ana fi. toog ngeen waxtaan ci. mais waxtaan day neex borom kër. dañ leen koo xañ. waaw. Mhm. lamb ji actuellement mu ngi waaj a ubbi. combat taxawagul ñu ne lamb ji léegi doxatul lamb ji doxatul wala muy dox. waaw lamb ji doxatul c'est-à-dire ñun ñoo aggravé situation bi mooy des fois saison mel noo xamante ne nii yéen reporters yi sax da ngeen saison bi day tooy ndax lan journée yi mel day neex day bari day lii mais bu ngeen paree est-ce que da ngeen ñëw ci média bi ren saison bi dafa neexoon dafa bëri woon ay journée dafa lii woon mais lan tax saison bu nekkee quatre journée wala cinq journée rek ñu wër média bi yëpp ne lamb ji doxatul ñun ñoo ko bëgg a rey doxatul nañu solution bu ko doxal amul leneen. ndax bi muy dox ñu ñoo ko doon doxal. lan mooy solution bi. maanaam leen rek moo fi nekk bi làmb di dox CNG bi fi nekkoon moo fi nekk mbër yi doon bëri ñooy bëri léegi la awule problème. est-ce que mbër yi doon bëri ñooy bëri parce que bàyyi na Tyson bàyyi na ak ñeneen ak ñeneen. léegi Yékini bàyyi bu bàyyi làmb Balla Gaye des si làmb Modou Lo des am na luy peer. laaj naa la ko. ba pare ay phénomène doolee ko waat ci nga amaat ci làmb ay ama ci ay sita te génération ñoom Yékini amuñu woon phénomène ñoom Balla Gaye ñoo te nekkuñu woon phénomène ay mbër lañu woon kon ñu ay genre Balla Gaye dóor yi ay phénomène lañ ci làmb. mais problème bi nekkul ay làmb dafa lii wala dafa laa dañuy wut solution loo xamante ne mooy doxa làmb parce que léegi làmb dafa am loo xamante ne nii moo ci gënoon neex sponsor mooy sponsor dafa bëgg bruit sponsor dafa bëgg bruit ambiance man dama doon seeraan kalaafu ñoom jos bi ñoom ay tigoo affaire yooyu jos daw futti yére bi fii sandi baj séeraas dugg sol ñetti abdu daw wër stade bi yooyu noonu mais léegi dangay ñëw di def loolu noonu tey da ngay ñëw ci làmb nga soo indi spectacle wax ak sa adversaire gëtoon ko nga dem dugg YouTube lire commentaire yi lépp nekk saaga kii daa réew kii daa lii kii daa laa te fekk jubluwoo ci loolu yow li ci jublu mooy événement bi da nga doon seetaan tey benn nit ku mel ne Balla Gaye 2 ku mu mës a bëreel wax na luy tàkk te du fay bu signaat bu lambu jeexee nga seeti ko wala mu seeti la parce que bis bi mooy toll noonu te bis bi ngay bëgg mu am coow bu toll noonu. kon Balla Gaye 2 su ma la dégg yi nga xam ne mën nañoo tax sponsor des ba pare yi nga xam ne tamit fi mu ne nii da ci amul mbër yi nga xam ne am nañ capacité événement maanaam bu njëkke man dama doon wax lu garaaw nit ñi ñëw reprocé li ma la wax ne la mobile nee na la nii mais yow doo ma dóor ci kaw sénégalais yi yow da ngay xool noo ma tontoo te du ñaaw mais léegi tey man bu ma la waxoon tey benn wax boo ñëwee tey toog ci télé bi moo ñun dañuy yar ñun lii ak lii parce que yaa ngi may dóor ci kaw sénégalais yi tey exemple rek laa lay jox bala Gaye am na way wax yi ñu yanga si mu wax yi gi nii bi ko bégaay demee rab u waxaat ko Yékini ne kon jaxase ko ak àdduna mais du ko def mais làmb léegi tollatul foofu da nga koy teg ci cadre sport léegi da ngay wax ak nit mu jëw dóor la ci kaw sénégalais yëpp mbër yi léegi dañu sportiful que par rapport ak mbër yi la sportif ba pare dañu yor jikko yu foo mooy da leen wax dara ñu taxaw ci net bi ne da jaxase la ak àdduna waat ci def lépp ngeen daje ñu jox la ñaari loxo mel ni doon ñëw mel ni ñoom ñoo commencé. loolu yoon la tamit. man seetaan naa benn mbër. yaa ko dékkoon micro li ma lay wax nii. nga ne ko sax ban combat moo la gën a neex mu ne la ko mu ne la parce que ni làmb ji tolloon yaakaar naa bi mu koy démentiraat yaa ko dékkaat micro nga naa sa combat la mobile la gën a sax ci làmb yi may fàttali loolu xanaa danaa naqari. non naqari wu ma parce que nekkul man man maa wax maa weddi mais imagine toi moom mag nit ku toll ni moom nga majeur nga toog ci télé wax ñëw toogaat ci télé wax toogoo ci jotaay weddi de télé lañ la dékkaat nga wax. mu bi ñu fugoo ñu nekk ji ba tey. am na solo léegi nag fi ñuy jeexale mooy man dama ñëw fekkaatu la fi gis la tey ak ci beneen soppeeku ndey ku ma faal sax mu koy wax mu bi mu mel ni war na soxna léegi de. waaw am naa jabar. daf fi kay def na un an. loolu de xanaa siiwaloo kon ko. ah waaw mais loolu sama problème la man sama vie la quoi. vie privée la. yaa sama vie la. Ah, boo amul loolu loolu la fàtte fàtte te bëgg ko ak looy tàggoo lu muy doon. waaw di wax na yaakaar naa ne wax nañ lépp xanaa dañuy sant yàlla rek di julli ci yonente bi di nuyu waa États-Unis gi nga xam ne fa lañ jóge xam nga di nuyu sama gars yëpp waa Arlen 116 xam nga waa xam nga 8 avenue waa. loolu nag suñuy ay yëpp maa ngi leen di béggee ñoom ma faal xam nga Ablaye Fall sama sama baay daaru bi xam nga di nuyu Ahmadou Bamba jóob tamit mooy loolu noonu di nuyu sama waa kër fi ma nekkoon Amérique muy ñoom Seexuna Bamba xam nga maati di ko jaale yaayam ji gaañu di nuyu sama rakk nag sama xarit muy Baye di leen ñaanal suñu borom yal na leen saxal ci liñ nekk parce que dëkk biñ nekk ak ñoom ni ñuy dundee jafe na ci lool mais dama leen di ñaanal muy sama waa kër muy ñoom Seexuna ak ñooñu yàlla na leen suñu borom jàppale di nuyu Mafal nag xam nga waaw sama watkat di ko nuyu moom ak waa place bi yëpp ñoom Bas ñoom Assane gaa yëpp maa ngi leen di bége waaw di nuyu xam sax bu baax sama dóorkat bi maa ngi leen di bége ñoom ñëpp gaa yaa ma xam di nuyu waa Amérique nuyu di nuyu sama yaay bu baax a baax. waaw adversaire yi nañ ñëw ñu ba ñun. kan kan ngay laaj laajal ma ñaari adversaire yoo xam ne làmb boole na la ak ñoom. man ak Coen neex na man ak caat bu booy bambara neex na. Hmm? Malick Niang mënul bëre kay na may booy chance bëre dem yoon. Malick dem seen da ngaa bëgg mu may bu ma joxee boo joxee suba suba ñu bëri. Ah. waaw.